asalaamualeykum mbokki internet yi safoo émission bii di réinsertion sociale mbokk mi tey réinsertion sociale mu ngi la indil thème boo xamante ne ni ay jooy kese la mbokk mi tem triste na ba waaye tem du triste ba raw thème bi mbokk mi xale bi ngay gis ni muy jooy xale bi day laaj ay droit ci dëkk ba nga xamante ne ni fa la juddoo màgge fa di Charlotte waaye saa bu xëyee rekk muy mel ni que moom gan la dans son propre pays mu ngi mel ni que rekk nga nekk turist ci sa réew mi nga xamante ne ni fa nga juddoo saa boo xëyee rekk ngay niroo kan sa dëkk boobu noonu ñu lay traité comme ku dëkkul si dëkk boobu fa nga juddoo fa nga màgge fala sa papa xam fala say maam fala say maamaati maamaati maamaati maam xam amuloo foo jëm xamuloo feneen fan nga jëm te waa réew ma saay boo xëyee rek ñu lay xoole bëtuloo bëti dëkkuloo fii xale bi loolu lay laaj ana lan moo gën a metti sa papa ak sa yaay saay bu ñu xëyee ñu ngiy daw si ngor ñu ngi daw ci defar la teraanga waaye léeg-léeg fan ngay dajewaat ak ñoom gannaaw ba ngeen defee hëgg le matin mooy ngeen songante ne à ce mu génn dem liggéey ji utal lu mu la dundale yow nga génne dem jàng ji ñu ne la dee na ngeen war a dajewaat sa armeel ya nee na loolu ay jooyi kese la nee na loolu naxaru kese la nee na ana kañ lañ ñuy jox suñu àq ak suñu yelleef ana kañ lañ ñuy xoole comme ñu dëkk ci juddoo bi ñu juddoo ci ghetto bi màgge ci ghetto bi te mënuñu am dara loo xamante ni luy wane kii jot na axam ak yelleefam mbokk mi gannaaw loolu ma dugg ci expérience bu nga xamante ne ni experience bu ma dund la moo waral tey thème bii nii ma mën ci xuus ba sori si ndax dama am ay doom yoo xamante ne ni boo leen laajee lan nga dañu ne lan ñun ay japonaise lañu ndeysaan te ñooñu ma nekk seen baay ñu juddoo ci réew mu nga xamante ne ni réewum nasaraan ya la nasaraan ya di leen xoole bëtu dëkku leen fi génn leen ci réew mi te ñoom ñu boole seen bopp ci réew moomu mbokk mi anal lan moo gën a metti nga tukki ji ñëw ñu ne laan kañ ngay ñibbi être touriste dans son propre pays immigré dafay tukki ji dem ñëwaat ci réew mi mu dëkk sax mënatu fa jot ay droit am li ñu koy jaayee lu nekk wala li ñu koy laaj lu nekk lépp lu muy jëflanteel xaalis lay doon te xaalis ba du sa am lu ko sa ne léeg-léeg ñu dogale ko dagg ak caxam wala léeg-léeg ñu dogale ko nangu xaalisam léeg-léeg ñu teg ko ay dil ci propre kër gi mu juddoo màgge fa tout simplement parce que dafa tukki ji woon daal di ñëw mbokk mi xale bi mu ngi laaj. kaña lay doon ñu yamale nit ku ñuul nit ki nit ki nga xamante ne nii mooy nit ku weex ñu yem kiif kiif ci li nga xamante ne nii moom mooy réew ma di Charlotte. mbokk mi li nga xamante ne nii moom mooy histoire bi dal ci kaw George Floyd ñu koy jooy te dootuñu ko noppi ba abadan comme ni ko Adama Kadiatu Kouyaté di waxe la panafricaniste guinéenne. bi nga xamante ne ni ndeysaan ndaw la waaye tamit mu ngi joowalam ci li nga xamante ne ni moom mooy waar wi mbokk mi umpalewle na ñi ñu fi mës a rey ñëpp ñu nekk ay dirigeant ñu oowee leen ay dictateur wala ñu oowee leen ñoo xamante ne ni mbokk mi seen doxalin bokkul ak ni nga xamante ne ni noonu la réew yeneen yi bëggale ay nit ñu ñuul lañu wala bokk bu ñu ñuululee kukk nga xam ne du ñu nekk ay occidentaux mu nekk ñoo xamante ne ni peut-être ci pays du golfe wala ci printemps arabe ñooñu la ñuy jàpp di leen juge yóbbu leen cour de la haie mbokk mi ana kan moo gën a garaaw ki nga xamante ne ni moom mooy président Sarkozy te ban tey jii nii mu ngi mucc ci joote yooyu nga xamante ne ni moom la def. mbokk mi ana moo gën a garaaw sar kii nga xamante ne ni moom mooy président Chirac te mucc na si joote yi nga xamante ne ni moom la def mbokk mi ana kan moo gën a garaaw Kim jong bu Corée du Sud te mucc na si joote yi nga xamante ne ni moom la def mbokk mi ana moo gën a garaaw ki nga xamante ne ni moom mooy Poutine te mucc na ci joote yi nga xamante ne ni moom la def mbokk mi mu mel ni que ñu ñuy pand di leen rey kële nga xamante ne ni moom mooy Berlusconi bu euh, Italie wala kële nga xamante ne ni moom mooy Mursi bu Brésil ay toox yu la ñu def waaye nag kaso yu neex lañ leen dugal tëj leen fa di def semblant mais bu dee dangaa doonam Xadafi dañu lay rey bu nekkee dangaa doonam boo ñu table publiquement publicité la su fekkente ne ni dangaa doon ki nga xamante ne ni moom mooy Osama Ben Laden ñu traqué la rey la su fekkente ne ni dangaa nekkam Saddam Hussein ñu jàpp la rey la publiquement waaye daal bu dee nit ku weex ñu fexe ba mu mujj si mbokk mi xale bi dafay laaj ana lan moo waral lu nu mel ana fan nga mës a gisee ñu rey nit ku weex publiquement ana fan nga gisee fu ñu defee nit ku weex loo xamante ne nii naka sa dul noonu la nee na ana kañ la nit ñu ñuul ñi di jot seen wàll si li nga xamante ne nii moom mooy fi ñu dëkk ana kañ lañ leen di yemale seen ax ak seen yelleef ñu jot ko si fa nga xamante ne nii fa la ñu bokk ñuy fàttali ne it dara gënuta metti nga xëy ndeysaan comme ni ñu ko waxee daje ki nga xamante ne ni moom mooy ki war a rey sa baay wala ki war a rey sa yaay te xamuloo ko ngeen di nuyoonte si même appartement bi wala ngeen di daje si même mer mbedd mi mun na nekk ki lay jàngal mun na nekk chauffeur bi lay yóbbu ndekete saay bu nekk mu ngi xalaat na lay def ba faagaagal la mbokk mi tey réinsertion au social fi mu dugg fi mu génn li mu dund di naxar boo xamante ne ni naxar bu tiis la George Floyd li mu dund li ko dal mu nekk loo xamante ne ni mbokk mi imaginer rek nga poñe sa bopp lu mot deux trois minutes poñe bu dëgër bu saf boo xamante ne ni poñe bu bu bu caaxaan àndul daal mbokk mi di nga yëg ne dee gi ñu rey waa ji nii rey bi ñu rey waa ji dee gi mu dee nii amul nu mu metewul ñu di leen fàttali rek ne leen africain yàgg na sonn samay doom ya nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk sa Japon tey sama xel dem na si ñoom waaye saa yi si nekk ñu ngi leen di traité comme ay étranger si biir Japon du ñu mës a jot si légion bi duñu mësa yéeg sa fa nga xamante ne ni waa réew ma dañ fay yéeg nekk ay nit yu weex tal te ñoom foofu la ñu bëgg a yegg. ñu yaakaaroon ne ki nga xamante ne ni moom mooy Barack Obama bu egsee yu bëri dafay changé si noir yi waaye daal mu mel ni que tey la mbir mi gën a yées tey la mbir mi gën a doy waar ana kaña la yaakaar ne lu ni mel dana soppeeku ana kaña la ñuy jot si ak coppeeku ci dunda dunda yi nga xamante ne ni jafe na te ñu ngi koy dund mu metti lool tout simplement parce que dañoo ñuul. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kayɗan ori ruttaki wa sensewa nani mo yatte kurenayi nde sono mama de miyu canga tesinayi de ɗi suni oriruna demo roha canwa roha canga yakka sono sensegaya dede roha canwa tamani papa ya, ya, ya, yate yukara ne sono sensewa yaritayi ke ɗo roha canwa ミューチャンの方がいいから一緒に手しないで降りた方がいいか先生がやりたくないかロカちゃんがその先生がやってほしくないかどっちなそれはロカちゃんはミュートやった方がいいやろ先生じゃなくて先生はもう一緒に降りたくないその先生は好きじゃない嫌いから一緒に何もやりたくないからその先生はそれも感じたからで seremo yani natere na yani kibuni natere mo na wakari masa seremo papa ah, tamani naru na uh, tamani naru na Cause you said that.